baax a baax pour ne pas sans plus tarder delu si waat rek ci li fi ñi fi jaar li ñu wax euh, voilà ñi fi jaar li ñu wax rek ci lañuy delu ci waat jaar ci ci ci wolof euh bañu bañu jappé jàppee dom ba fi ñu ñun amatuñu dund metti na ba fu metti yem ndax doom dafa sax ci xol dafa fàqee ko fu sori ci doom ci ndeyam euh, nga jël ko dugal ko fu xat fu mel na prison nga xam ne bàmmeel la ci kaw suuf dafa metti moo waral ba ñu sos collectif bi di fa waxtaan di fa daje ku jooy sa moroom defal la fa la ñuy reetaane fa la ñuy jooyee ñu ngi commencé ci conférence de presse comme ni ko Papis Ndim waxee ba aksi fii ñu agsi muy lu metti ñu koy dund am na ñu fa def ay ñaari at am ñu fa def at ak genn wàll am ñu fa def ay weer ba ci vendredi bi passé am na ñu ñu jàpp famille yëpp sëngéem nañu tayi nañu parce que amatuñu vie bo tëddee do nelaw so timé lek da ngay sour adina safatu la dara te far aayul nguur gi fi nek buñu farul won ak mom sotlé ko tay duñu aksi ak mom fi mënuñu seetaan injustice lolu motax bañu biñ ko bëggé tek liñ ko tek Sénégal gëpp juk ànd ak moom sotle ko loolu moo waral mu mu agsi fii mu agsi tey kon moom dañ koy wax Macky Sall del del jël Macky mille 2011 di ko teg ci sa kanam mu lay yedd parce que lii nga ñu teg tey metti na ba fu metti di yem Macky Sall tas nga famille yu bare xale yi seeni sëy tas nañ ndax yow xale yaa ngi déprir ñu ngi déprir ndax yow ku fa génn nuróotoo ak nit ndax li nga fay dund prison du kër prison xat na lëndëm na metti na man tey alhamdulillah sama doom génn na mais samay doom yi ngi ci biir te ba mu génnee ba léegi yi mu daawul def lay def da ngay wax mu yuuxu chaque jour maa ngi hôpital waxatu bu dul jeex may dund lu metti te li may dund loolu la sama sama naatangoo yi nii ma dendal ñëpp ak ñi waroon ñëw di dund mu metti ba fu metti yem seen far moo tax ba ñu teg leen mettit gi ñu leen teg te du yoon yàlla sax dafa far yàlla sax dafa far kon du yoon ba ñuy jël ay xale ndax seen far di leen tëj loolu fii rek la am loolu fii rek la am

di ñu dalal bu bu bu élection amee incha allah dinañu génn boo demee ñoom ñoo lay defal keroog ba mu jëlee initiative jël li mu jël dogal bi mu bi mu bi mu décidé wax li mu wax la xew rëbës ku ne xam na ko ñu ñu leen di tiré di leen gazé di leen tiré ay lacrymogène tir de sommation lañ fa la la ñu déclaré ñoom d'après seeni wax mais ñun liñ fa dégg dalul suñu xel ndax alentour bi. ay ni dafa dëkk de gis nañu li fa génn am na ku toog fii boobu ba tey avant boobu déggatul doomam te boobu ba tey déggatul doomam te doomam dafa feebar ñuy ñaan ñu communiquer ci loolu ñu wax ñu lan moo xew biir rëbës mutinerie bi mu fa amee ñu nekkoon ci chambre yi nga xam ne sax xaw na tane dañ leen dañ leen fa jëlee yóbbu leen ci chambre yi gën a tar loolu du yëfu nit loolu du yëfu nit Macky Sall ñun ñaanuñu la dañuy exiger yi ndax prison du kër tëraay bi yàgg na toogaay bi na yi ñu diñ na dugal ci prison xale yi set wicc ay gor yu set wicc judd fi ñu war a set wicc defuñu la waxuñu la seen seul ñu far far kenn terew ko man politique sama borom keur politique sama sama dom biñu jël dugal ko prison mësul politique dafa liggéey wacc ñu tase ak mom jël ko dem tejj ko te Macky Sall dina la xamal ni dina la top parce que ko fenn di yuni ay policier ñuy tiire ay bal réel ci kaw nit ñi di ray suñuy dom du dëgg du yoon du dëgg du yoon élection yi nak lañuy lañu amone yaakar à que mu ñu tenir ko loolu la ñuy ñaan opinion internationale nañ ni ci jàppale na ci ñëpp jàpp élection yi à que ñu tenir élection yi ndax xale yi mën a génn lii moo doon suñu kàddu euh, ndax mënuñu wax lépp yaayu détenu yaa ngi fi euh, waaw di leen yëgal ni samedi incha allah ñu autorisé ñu ko ak ñu bañ ñu ko autorisé lan si yemale incha allah samedi yaay yi dinañ génn xamal Macky sàll ne ko dafa doy na génnee suñuy doom ci prison yi prison du kër moom dafa uuf ay doomam jël ay doomu jàmbur ay gor yu set wicc ñu amal seeni ndey ak seeni baay njariñ jël leen dugal leen prison prison du kër prison du hôtel étoile euh, euh, trois étoiles xawma ma deux prison du dëkkuwaay defuñu la waxuñu la na génne xale yi lii daal lañ koy wax ñaanuñu ko nag encore une fois Macky Sall ñun ñaanuñu la saraxuñu la réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ay sénégalais lañu far nag fii lañ ko fekk fii lañu fekk far far aayul par parloo moo aay te yow loolu nga jëfee dañ lay exiger nga génnee suñu doom yi ci prison yi lii la ñu amoon pour wax leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullah